ni télévision bi jox naa ko Sëriñ Touba mais Alaaji Njaay loola na waaye Alaaji Njaay dafa jëlub téléphone am wax ku ca xam tayru saan nu tayru xam nu fu tayru dëkk Alaaji Njaay woo ko ni ko joxeel fanweeri mu joxe fanweeri million Alaaji Njaay bàyyiwu ko ba mu jàgg Alaaji Njaay ni ko kon lii ma kenn ku ne xam na ni man nekkuma 2 waaye Serigne laa nekk man bi ma yàlla bind sëñ tax ku defal sëñ Bamba danaa ko wax Alaaji Njaay liggéeyal na Serigne Touba lool dana xam ne daana ko def waaye dana xam ne liggéeyal Serigne Touba France la France nuróo naag yàq waaye ngóob moo ko weddi Alaaji Njaay dana góob kon ñu ngi koy gërëm di soññi télévision yëpp it ndax kenn ku nekk. ndaje mi bari na te yëgale gunu te ku ne jëf Youssou Ndour mi ngi nuy dégg tugaan gi daal ni mi nga xam ne day taalibe sëñ Bamba aw ma lu moom mi ngi nuy dégg Lat Fall mi ngi nuy dégg Touba TV ñëw na mi ngi def direct gàcce ngaalaama moom kon télévision boo xam ne bii feeñ nga ci Touba ci kanam dootoo nëbbu kon ñi yor organe de presse yi ak journaliste yi ak ñiy bind ah nañu góorgóorlu te xam ne lu waay def ci Touba ca kanam sëñ Bamba nga ko defal kon Alaaji Njaay ñu ngi koy gërëm Alaaji Njaay ngi koy ñaanal yàlla guddal fan samay ko wér màggal Touba am na ak moom moo ko njëkk a def direct ci télévision privée day mbokkum sëriñ bi dëkk moo tax Alaaji Njaay def loolu ginnaaw loolu ñu ngi gërëm Tayru Sarr Tahirou Sarr jëf ji mu jëf daana jëf de bëgg dem ci mbënd mi euh, ci feebar mi milliard la joxe waaye dana xam ne liggéey na sëñ Touba Abdou Aziz Aly Ndiaye Abdou Aziz Aly ñu koy gërëm ah ñu may ma ma leeral ñu may ma tuuti ma leeral sëñ bi loolu. leen la commune de Touba ànd ak seen maire ànd ñi nga xam ne ñoom ñooy conseillers municipaux yi dañu fi ñëw andil ñu fi loo xam ne dañ ko bëggoon a leeral rek ci biir mbooloo mi mooy keroog bi nga xamee ne ñi ngi taseeg ñoom en réunion commune bi ci boppam dafa jëloon décision wax ne dinañ ñu jox 5000 litres carburant 5000 litres carburant yi jox nañ ma ko mi ngi nii. mais andi nañ aussi 30 de francs CFA. yoo xam ne apport commune bi la. waaw ah, loolu biñ ko defee ba pare Cheikh Abdoulaye Ka ci wàllu boppam joxe na 5 millions de francs CFA ci liggéey bi loolu bi mu noppee ñu boole ci.